fi mu nekk nii foog ñu jàppalante bu baax a baax a baax moo tax ma ne leen tey li nga xam ne moom la Amie tooga am na solo am na solo boo xam ne ni yéen da ngeen ci am wàll bu baax a baax a baax waaye ndegeen nag tey li ñu desee ci si waxtu bareetu dara saa su dañoo am mbégte ak kontante ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan waaye nag bëgg naa jeeg bu nekk rek su ko defee rek mu góorgóorlu daal di defar shawarma ci kiram waaye nag tey damaa ki nga xam ne ni mooy suma càmmeñ suma xarit di use boy ci taawam bu jigéen bi nga xam ne ni moom la am si bés yi fan yi génn ni di ñaanal moo jabaram yal nañ toog ba liñ bëgg seen doom boobu ñu am ko muy jula am um, use voice su nekkee yaa ngi seetaan nag tey moom plate bi yëpp dama la koo delloo nga yóbbul ma ko di jula won ko ne lool si suñ taaw bu jigéen bii waaye nag di ñaanal Sirifo tamit yéen na bokk ci ñi ne nii fa nekk ñoom Moussa ak ki ne nii ñoom Essa Thiaw ak ne mooy Fatmata ñoom ñëpp nekk foofu noonu ca control room ba sas nekk dañoo am mbégte ak kontaante yéen a rek la ñoo am ne damaa bëggee waa Sambène coiffure bu baax a baax a baax ko nga xam ne mooy Yeysa Jawara ak xale yëpp ne ko foofu na ca Fajara Atlantic Road gis ngeen tey ni nga xam ne noonu la defee boppa bi daal di defar na boppa bi ba mu nice moo tax ma ne leen fi mu nekk nii képp koo xam ne bëgg ngaa defar sa boppa ba mu rafet étati rek sa téléphone nga call waa Sambène coiffure am ci 778 4488 778 4488 soo callee Yeysa rek dina leen wan ne tey moom ci fii rek la jaar di ci kontaan bu baax a baax a baax waaye yéen ñi nga xam ne tamit yéen ak ñoo seetaan képp koo xam ne bëgg naa togga fi mu nekk nii dama leen di wax ne damaa ñëw fekkati leen seen biir kër yi ekkati leen rek seen téléphone yi ngeen kooma ci 36 triple 5 61 36 triple 5 61 seen xarit la maam Dieng di leen dig daje incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee am next week di talaata bi di ñëw su ko defee rek ñu daal di defaat rek ak yeneen façon tooga ci biir programme yi bakku bi jërë ngeen jëf te mbégte day am saa su nekk suma fi toogee wax naa leen ne fi mu nekk nii waa London a ngee def lu toj dañ ne woon waa Gambie yaa ngee def lu toj waa biir Kama ngee def lu toj waaye London ñu ne ñoo bañ ñu ne dinañu toggal loo xam ne jéegi Gambie man maag naa leen ex léegi kenn du fi defati tout à pare ready made dem jëndi ko fast food déedéet man dama ne maa bañ waaye amee dañoo àndaa yow ci biir waañ bi ñu di ko def goto goto ah lay wax ah musidɓe fulɓe on mi yafoton hannde rek ñu wecci cosaan tey waaw <laughs> all right ñu seetaan am ci biir waañ bi Um, di fàttali nit ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan rek trip bi nga xam ne moom la ñëw fii nii ci London it's proudly sponsored by Gambia Bar sas nekk Gambia Bar ma ne leen mooy flight bi nga xam ne ni daf laa jëlee Banjul yóbbu la ci sa destination jëlee waat la fi nga jógee yóbbuwaat la Gambia te loolu loolu lañ doon ñaan yàlla moo tax ma ne leen sas nekk dañoo kontaan ak mbégte ak Gambia Bar we are proud of you being a Gambian. waaw laaj rek laaj bi waaw. waaw te gannaaw sax dafa soxla laaj dafa soxla laaj. waaw laaj waaw. What you do live like? Munta ko di pawaso ko di pera pa ang dok dok. Pero so ko rabi so ang pa choy. War pa choy. So mira lang ko ra ko bay ni bin ko di pa kun yo avoid dok ni. Rabi la. Dañ ko jël rek bàyyi ko si. yàqaloo ko tuuti rek. li mooy raab bi. bu raab waaw. léegi shawarma bi comme ginaar bi ñor na fry na. dafa ne brown na. li mhm. ñoo def ñu sànni si suñ vegetable suñ days. def ko si noonu rek. waaye duñ ko bàyyi dafa tànga rek ñu waa fay ko. su tàngee su baax. baaxee bi fi ne mhm. dafa ñu bari si ndox. koy soo dañ koo tàngaal rek nii génnee ko ñu du fi yàgga ah. su defee ñu ñëw pour raab raab bi waaw du fi yàgga dañ ko defar nii rek ñu génnee ko comme tooga nañ lii bi yëpp pare waaw tooga nañ fi nam bi muy shawarma bi shawarma bi waaw léegi soo buggee ketchup mhm. nga def si soo buggee mayonnaise def si soo bugguti nga bàyyi ko plain mhm. waaye man mos dama see def tuuti ketchup ma def si tuuti mayonnaise bi lu tuuti rek. waaw. ba pare sànni si. tuuti salade. tuuti salade. daal loo ci bugg a def rek. bugg def waaw nga def nga jël lii bi. Mhm. xoolal si sa because am na red yellow green. waaw ko different colors mu ko that nice color. ok. nga door nag di mhm. soba mayango. wrap ko ɓen mbaa dem halfway tall su la neexee nga bàyyi ko nii comme dinaa la woon different type wrapping waaw halfway bi nii su la neexee den mm-hmm. ñu am beneen façon mm-hmm. ba pare mu nga jël foil foil white paper léegi ma def beneen full wrapping bi den ñu def benn si foil tamit waaw nga ñëw defati mayonnaise mm-hmm. tuuti rek gënu bari parce que am na ñu mayonnaise waaye pour mu tooyal sa salade bee yooyu si biir la. Mm-hmm. the wrap for you out. Now we put sides here, the wrap both sides. comme ni nga ràppul side si léegi ñu def benn koo xam ne bi ñoo ràpp foil bi foil bi waaw da nga def sa foil paper bi waaw moom ngay njëkk a teg ci suuf parce que xam nga léeg-léeg mun nga koo toj koo xam ne dafa xiit xiit waaw ñi nga xam ne ni ñu ñëwaguñ pour mm-hmm. bu bañeen lekk bu seere daal mm-hmm. léegi danga koo teg ci kawam nii rek mm-hmm. nga def same procedure a little bit of mayonnaise mayonnaise des na nag su dee da nga a da a kaani bi sa dañ see tabaxal kaani waaw waaw waaw nga def si kaani gi rek mu gën cee ñu def soo ko dooree rek. waaw nga jël foil bi. da nga koo raab ba pare. da nga koo da rek. rek nga def ci raab foil bi rek. Ah. am suñu mbokk yi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan gis ngeen tey li nga xam ne moom la am Diallo toogal Amie Diallo daal li nga xam ne ne mooy raad ñun Gambien dañoo naan shawarma waaye yëpp rek pour rek ñu jàppale jeeg ñi ci biir kër gi na war naa leen ne lu wàññi tàng tàng foog ñu ànda yéen ci biir waañ bi seet lu nekk ci biir waañ bi ko indi rek teg waaye gis ne raad bi ni gis ngeen ci nekk am na solo lool waaye réewi Gambie foog naa ne may ndi ka seet ndax neex naam neexul ko dee waxee xam nga booy weesal sax nga ko njëkk a yëgee sa yi neex na lool waaye yëpp ci raat bi. comme suñu mbokk yi ngeen ko ku nekk xam ne fi mu nekk nii Gambia Radio and Television Services rëmbee nañ léegi ba nga xam gis ngeen li nga xam ne ni moom la doomi Gambia di tooga muy Ami Jalo Ami Jalo dama bëgg a nag man. waaw gi ma téye nii. xam nga bëgg ma yóbbuwaaleel la ko Banjul. lii maam waaw. nit ku baax ku bugg a siiwaan. waaw taxaw ma taxaw. yëpp. waaw léegi dugal biir ba maa dem université ñëpp xam nañ dëkk bi avec xale dafa métti. bi maa dem school. Mhm. dama ko jox suma doom la mu téyel ma leen toppatoo ma leen. Mhm. ba tey sax suma koolee. nit ñi dañ maa moom ma gën a bugg suma doom yi ma jur. waaw seen nag su dul suma mag ci ma bokkal di umi Diallo sa tuuti moom laa bëgg ngeen yóbbu ko lekk su dama dal di téye rek waaye yaa xos la su ma laaj ndax daa bee tay dama ne am am nga bëgg Hey!